soo ubbee compte nag def say information fan nga bëgg ñu libéré la ko ban dëkk nga nekk nga def sa numéro téléphone nga jënd CD yi sélectionné ba cinq ci site bi bu neexee nga sélectionné deux nga jënd ko benn faramaareen benn CD disque d'or bi ñëw Wally def na lu ne Sénégal disque d'or a ñu manqué faramaareen bi lool nga ñu desel mariasin may sa biga may sa biga maar disque d'or nga ñu desel te di ko jënd lii ngeen di gis nii maa ko jënd léegi-léegi nii pour wan leen nun koy jëndee dafay yomb jorul ngay xaar naan damay am compte déedéet man nga dem payé nga jënd disque d'or bi en Faramareen en Siré direction disque d'or yéen Faramareen yi